détenteurs du monopole de la violence légitime. Le droit de manifestation est subtilement mis en apté avec des meetings interdits selon les rumeurs et les humeurs. Des bras de fer sont menés avec des forces syndicales par des rétentions de salaire et des menaces de radiation. La suite est à lire dans Réumi Quotidien disponible sur réumi.com. Dans l'Observateur, c'est Idi qui fusille Maki relativement au débat sur la double nationalité. Le patron du parti Réumi qualifie ce débat la double nationalité de malsain dangereux. Cette nouvelle erreur de Macky n'obéit qu'à des calculs politiciens, soutient Idriss Seck. L'AS informe que le président du parti Réumi Idriss Seck a sorti une déclaration pour se prononcer sur le débat sur la nationalité. L'ancien premier ministre pense que ce débat que veulent instaurer les membres du régime pour des intérêts politiques est malsain et dangereux. Même s'il dit être exclusivement de nationalité sénégalaise, Idriss Seck s'interroge sur a les autres. L'AS rapporte l'intégralité de la déclaration d'Idriss Sek à sa page L'on retrouve Idriss Sek dans Enquête où il qualifie de malsain le débat sur la double nationalité. Pendant ce temps, le député maire socialiste Barthélémy Diaz se veut clair dans l'Observateur. Pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, il confirme que Tahaou Dakar va présenter sa propre liste mais ne compte pas s'allier avec la coalition Benno Bokuyakar. Ce qui fait une du Parti socialiste vote Tanor, informe ce quotidien. Au même moment, Walf Quotidien, concernant la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales, renseigne que des apéristes ne veulent pas de Tanor. Dans un autre ce journal s'intéressant au taux de réussite au BFM informe à sa une que Dakar occupe la dernière place. Des observateurs de l'école expliquent cette mauvaise performance à la page de ce quotidien. Le quotidien Enquête se de la Ces bons résultats sont le fruit d'un effort de redressement de l'entreprise selon ce quotidien qui qualifie de points noirs les pannes sur le réseau, la fraude et les factures non payées. Hong Kong, une autre planque offshore pour Menzibar à sa une libération qui soutient à sa page avoir obtenu plusieurs fichiers qui permettent de cerner la présence d'aviation on-link service à Hong Kong depuis le 19 janvier Loin du Sénégal, Bibo Bourgi a pu fructifier journal. Le journal LAS nous apprend que la nouvelle présidente de l'Office national de lutte contre la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté, prête serment demain. Sud Quotidien propose pour sa part un dossier sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie saoudite. Le Sénégal a des pays avec qui il entretient une coopération diplomatique singulière, signale ce journal qui note que les États-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie saoudite la diplomatie sénégalaise. population revient à mettre en péril la sécurité intérieure du Sénégal. L'avis est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankor qui présidait hier le lancement de la revue des activités diplomatiques du chef de l'État entre et Note ce quotidien qui donne plus de détails à sa page 3. Bonne lecture à tous. dal leen ak jàmm ci lii ni kay xëy gën tey ci Rewmi FM Rewmi quotidien jarale ko gauchisme ndax gouvernement boo xam ne bii daanaka ñi ci ëpp ay gauchiste yu 1980 la ñu tey ji doxalin wi lu jëm ci ay meeting yu bëri ñu koy gàntal ay doomu adama yu ko bëggoon def jàppanteeg syndicat d'enseignants yi ay salaire yu ñu bëgg a ñu ñuy bëgg a ci fonction publique bi yi ni cabinet ay milliards yu ñu rawale ba fi ñu toll ñu ko rawale ñuy wéy leen ar ab policier bu ñu ger ci juróom benn téeméer dong ay dëmbooc ñu jëlee ko ci bopp conseil départemental bu Bambey page Facebook am libération Karim Wade lii lépp point com président Macky Sall ndax mën nañ ko bàkkee koo xam ne ki wàllu libéral lu mu gëm ci boppam la ñàkk gëm boppam dëgg-dëgg ak i calcul politique Idriss Seck de moo tax président Macky Sall bëgg a soliwaat lu jëm ci mbirom ñaari nationalité moom Idriss Seck waxtaan wi ni mel dañ ko war a teg ci suuf ndax waxtaan wu dangereux la woo xam ne mën naa taal am réew ndax double nationalité boppam ak waxtaan wi taal na yeneen moom njiital parti réew mi ci yërikaay bi Sall dafa dakkal coowal double nationalité mbirum double nationalité ka coow li mu mun indi ci réew bu Sénégal président Macky Sall moom ci boppam tiit bu ko xamoon dana ko teg ci suuf ndax koo xam ne kii danga am jabar biti réew wala am ay doom biti réew wala sa jëkkër nekk fii ci réew bu Sénégal lan la la doomu Sénégal gënee ba bu ñuy laaj ci réew mi nga bañ a yëkkati sa loxo yi ni kay bi di observateur ne lu jëm ci élection bu au conseil bu collectivité territoriale Barthélémy Diaz a Khalifa Sall feew nañ seen yoon jamono nga Walf Quotidien ne Ousmane Tanor Dieng de donte de bëgg naa sëmp ndënd leen ci au conseil bu collectivité territoriale waaye nag am na ñoo xam ne ñu ngi ci APR bëgguñu benn yoon mu nekk candidat wala sax ñu koy tabb ci bopp au conseil bu collectivité territoriale ci jamono jooju Pape Ndiaye ci réew mi ne parti démocratique sénégalais gannaaw ni mu ñàkkee élection présidentielle 2012 fukki at ak ñaar mu def ko ci nguur gi tey jile ñeenti at mu nekk ci opposition bi tey am ci wàllu doxalinam Pape Ndiaye daanaka a waral ne doxalinu parti démocrate sénégalais kenn xamul foo koy natt mooy lu jëm ci wàllu référendum bi ñoom libéraux yëpp ñu ànd boole seeni doole na noo ñu wotee lañ cay am ñu am ko ca tey ñuy waajal ñeenti fan ci weeru septembre ay élection yu jëm ci haut conseil bu collectivité territoriale ñenn ci parti démocrate sénégalais na dañ cay bokk ñeneen ñi bokkuñ ci référendum bi ak o conseil bu collectivité locale Pam Ndiaye ne lan moo ko wutale ba parti démocratique sénégalais ne bokkuñu woon fee bëgg a bokk fii fii ci Ndakaaru bu ñu waxtaanee résultat yu tukkee ci wàllu BFM bi ñoo ci jël ndàdde ay observateur ci ni cabinet ni tax Ndakaaru jël ndaara ci résultat BFM ci fukki région ak ñeent nekk ci réew bu Sénégal du leen lu may bëri ak élèves yu bëri ak école privée yi taxoon ba njàng mi ni mu waroon amee dëgg-dëgg qualité ameewu ko Sénélec am na fukki milliards ak ñaar ci ay kontam ci bilan 2015 yéen kay bi di enquête ne résultat yi mel résultat gënu ko baax ndax entreprise bi si boppam ay jamono ngi nii ci gannaaw da doon sukuraat waaye fi ñu toll nii ci ndimbala directeur général bi di Makhtar Cissé seen doole yi ni boole tax na ba fi ñu toll nii ñu indi ay saafara ci wàllu entreprise boobu la donte ne sax lu jëm ci wàllu réseau bi yenn ci facteurs yi ñu du fay sax nekk na ay jafe-jafe ci wàllu Sénélec Sud Quotidien lu jëm ci wàllu relation diplomatique Sénégal ak réew yi nga xam ne ñoom la gën a jubóog lu jëm seen wàllu karange ga ñu koy France Amérique Maroc ba ci Arabie Saoudite Mbankeer Ndiaye di ministre bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu biiti réew ci li cabinet réew yi mel képp koo xam ne kii sénégalais nga dangaa war a dëggalal relation yi ni mel ndax boo ko soofantale wala nga bëgg koo nasaxal xamal ne xel ni yaa ngi nasaxal kaare ngi réewum Sénégal wàllu tàggat yaram Jeux olympiques 2016 ya ñu amal ca diwaan bu Brésil Babacar Mokhtar Wade président bu fédération bu judo ci réew bu Sénégal daal nay teg ci André ba Hortense Diedhiou moom Babacar Mokhtar Wade ci ni cabinet Hortense Diedhiou ci boppam boppam ni ñu ko éliminer nekkul mbetteel la ndax ma war na xool bu baax ni muy doxalee ni ñuy doxalee tamit moom la gaynde yu jigéen yu Sénégal war na xool ci wàllu basket bi dafa gay di kii tàggat gaynde yu Sénégal ci ni cabine waajay wi ñu waroon amal dëgg-dëgg gaynde yi laata ñuy dem ca Rio moom la ñu amalut ndax du nekk ne da ñëw di amal ay match ak kade fii ci diwaan bu Ndakaar rek yaakaar ne noppi nga ngir am ndam ca diwaan bu Rio li am ca Rio ak li ci Sénégal du benn daanele ak réew mi point com yéen kay bi ne première dame bu Nigéria di Aïcha Buhari coow dëgg moo ko topp ndax xew mu demoon ca diwaan bu Washington ànd fa ak sac boo xam ne bi toll na ci trente cinq centimètres waaye li ca gën a doy waar ak coow lu mu jur ca diwaan bu Nigéria mooy ne sac bu première dame bu Nigéria boobu lay ma ngay jar cent cinq mille dollars